Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te euh, tey nag euh, guddi gi ñu ngi taxaw ak ki ki waraloon guddi gi ki nga xamante ne bii euh, moom mooy l'initiateur de Rayo Music Award at mu jot muy récompenser la culture sénégalaise plus particulièrement la musique sénégalaise Souleymane événement bi jàll na si jàmm lan nga yëg tey. ah contentement may sant ñëpp ba ma santee ñëpp ba pare damay ni dama kontaan. kontaan naa lool ci événement bi ni mu déroulé woo ñëpp gis nañ ci seen bopp c'était pas facile nag mësul yomb et événement moo demee noonu événement bu mënti doon du yomb waaye dañ ci wasu àq ba ñi nga xam ni ñoo tax ñuy organiser lii wala ñu ci rey suñ bopp suñ ñëwee kontaan ci. Euh, euh, méttiwaay bi man euh, fi ma ko gën a xalaatee peut-être niveau organisation d'accord métti na mais côté distinction donc naka ngay def ba choisir ba choisir et puis ba mën a primer par par la suite coow li nga ciy daaj ah. bon choix bi moom c'est très difficile. waaye mais nekkul man maa koy choisir c'est les animateurs de la place ñoom ñooy nomi ñooy ñooy nominé et que suñu nominé on va se revoir en comité directeur suñu gisee en comité directeur on ñu def beneen sélection boo xam ne euh, boobu moo gën a normal avec les mélomanes ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci membre du jury bi après ñu doog a contacter tous les artistes nominés pour leur faire comprendre qu'ils font partie des nominés des Rayon Music Awards sur différentes catégories d'accord euh, coono bi nga ci daaj aussi et souvent nga gis ñoo xam ne dinañ leen nominer mais euh, du ñu ñëw wala parfois aussi euh, nga gis ne du ñu kontaan par rapport ak trophée bi ki nga ko jox wala ki nga bàyyi yan retour ngay jot souvent. au fait Sénégal moom liggéey fi dafa metti tu sais que à l'unanimité amul fenn yàlla suñu borom sax amul l'unanimité ba tax na bu ñi nga xam ni ñoo gagné. tout le temps di nga dégg ku ne la non non kii war woon gagné diw moo waroon gagné mais loolu tamit du nekkul man maa koy def parce que bu nee la dañ la nominé ci Raaya Musique Awards dafa am plateau de vote par SMS boo amee ci vote par SMS yi ça représente 30 du jury qui notent ça et bu ñu notee loolu lépp on cumule les pour sortir ñi nga xam ne ñoo gagné nit nag suñ la boolee ci dara ak lu mënti doon ñu sax kaay ñu naan ndox. boole la ci jox la ci cër bu guddee jotee da ngaa war a mën a ñëw toog ak artiste bu mu mënti doon même boo nekkee un artiste planétaire parce que nit ki nga xam ne mooy góorgóorlu ba teg loolu noonu xam moo avec quel moyen lay réussir événement wala lan la ciy def pour am lu mu li ngay xam ne moom moo leen di bëggal ñoom ba nga xam ne ki ciy jël trophée wax ki ci dul am trophée du nuy non kontaan naa wala ñàkk maa kontaan il faut reconnaître le travail des autres et respecter les gens yi nga xam ne ñoo lay nominé ci awards parce que les awards là ça leur amène un peu partout dans le monde mm-hmm. et fu ñu dem ci àdduna ils vont dire que je fais partie de j'étais partie mais au Sénégal ils vont se lamenter pour dire que no non non non on m'a fait ceci on m'a cela non non non je suis pas je suis désolé mais ñun ñëpp on est des jeunes on travaille pour la culture nañ jéem a jàppalante jëm ci kanam parce que àdduna bi jeexagul et l'avenir est devant sant naa ñëpp ñëpp sant ñëpp di wax ni nag les ministres de la culture euh, ñi nga xam ni ñooy nekk ci culture bi ñu jàppalante parce que metti na adduna bi dafa metti surtout les événements qu'on fait là c'est très et on a besoin de support et que il faut qu'on travaille avec le ministère de la culture directement parce que c'est pas facile. xanaa euh, état jàpp ci ak ministère de la culture. non état moom jàpp ci pour événement bii nii état jàpp ci événement ba le passé kundul moo ci jàppoon. de euh, bi mu nekkee direction des arts instant boobu moom moo nekkoon directeur direction des arts ñu er, organiser événement bi ba mu war a nekk le 9 décret bi génn le 8 donc on avait tout dépensé on avait tout fait dama xam ne deful woon lu dul def événement bi. ñu indi arrêté ministériel bi nga xam ne moo taxoon ñu arrêté parce que mbas mi moo fi nekkoon donc du coup ci ñu bi bañ tijjiwaatee ñu góorgóorlu ba def ko ndax nit ñi nga xam ne liggéeyoon nañ ba ñu nominé wu nañ ci catégorie soxla woon nañ xam kan moo gagné ak ndax am nañ trophée wala amuñu trophée moo tax comme que le 9 lañ ko jàppoon ñu yawakaat ko le 9 avril pour delloo leen jukkal delloo leen li nga xam ne ñoom ñoo ko liggéeyoon ñu jox leen seen ay trophée dinañ wax ne àndaloo kii kii wa kii mais je suis pas je tellement neutre surtout artistes yëpp sama ay xarit lañ jàmm rek laa seq ak ñoom su ma sañoon damay teg fii trophée artiste bu dugg fii nii ma jox la ko raison pour laquelle ñuy joxe les diplômes de reconnaissance d'avoir participé au Raaya Musique Awards parce que c'est pas facile parce que ku bokk ci euh, jongante bëgg nga am sax loo xam ne di nga ko xool suba ni lii dem moo taxoon ma dem ci jongante ba te li ma fa demoon rusuma ci awma ci gàcce. félicitations mon frère et bon courage. merci beaucoup. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te